salaamaaleykum wa rahmatulah mbokk yi ñu ngi leen nuyu baax di leen siyaare ci weeru tedd wi ñu nekk di weeru màggal ñu nekk fii ci nekk ci kër Serigne Touba gi ngir liggéey boo xam ne ñu ngi koy liggéey ci comité organisation màggal Touba ci wàll gi nga xam ne moom la ci daayira Muxaddamatul Xidma féete mooy ci biir commission organisation li ñuy wax ak yi hébergement kilifa diine yi ñoom la yàlla dogal. ñoo ko yore ba comité bi taxawee ba léegi ni ñu ko baaxoo def nag nga xam ne li tàmbali kees safar ba màggal gi jeex ñoom daayira Moukhaddamatoul ma ñoo yor kilifa yooyu loolu ci lañ nekk nga xam ne waxati tàmbali kees safar ba noonu dana def waxtu nekk weer 4 dana am ñenn ci membre yi yoo xam ne ñoo fi nekk ñenn ñi nekk fii ci kër Sëriñ Tuubaa gi ci jumaa ji ñenn ñu nekk ci kër Sëriñ Tuubaa nga xam ne moo nekk Daaru Marnaan ñu séddale ko ci ay nit ngir di taxaw taxawaay yooyu nga xam ne moom la ñuy yittewoo ci barab bi loo tax nag ñu ko tàmbali tàmbali nañ ko gan ñi tàmbali nañu ñëw ñu ngi leen di arrêté di xam ñenn ñu nekk fa ñu dal di leen boole ñi leen war a toppatoo ñu toppatoo leen ba seen dara du manqué li nga xam ne moom lañ ko bëggee loola waral nag mm, ci liggéey boobu euh, ñu ànd ko mboolem ñu bokkal daayira bi ci ñu affecté leen ñu féete ci wet gii ku na xam ne màggal bu ñëwee daayira bi dafay xaajaloo ñenn ñi dañuy liggéey ci jumaa ji ñenn ñi liggéey ci kër Sëriñ Tuubaa gi ci comité organisation màggal Tuubaa moo taxee nag tey ji ñu ngi fii nii tàmbali ñu dalal mm, gan ñi 15 safar tey nag la 16 safar ñu ngi nii nekk ci liggéey bi ngir fas yéene ànd gan ñi euh, ci loolu nag mu liggéey boo xam ne liggéey bu am solo lay doon ndax képp koo xam dalal nañ la fi danañ xam na nga tudd danañ xam fa nga jóge euh, dana danañ xam ni nga ni nga ne heure bi nga dugg ci kër gi danañ xam heure ban ak bis dan ban nga dugg ci kër gi danañ xam tamit chambre bañ la dalal danañ xam sa numéro téléphone laaj ci yow lépp danañ ko xam yow nga am ko nga xam doo am benn jafe-jafe boole laa bu noppi boole laa koo xam ne moo lay toppatoo ci sa lépp ba keroog ngay dem loo tax daayira Moukhaddamatoul féete fii ci wet googu ngir liggéeyal ci Euh, sëriñ bi ci wet gi nga xam ne mooy seen participation ci comité d'organisation bi te noonu nañ leen di toppee nag nga xam ne kenn ku ci nekk foo mën di nekk euh, la ca war ci yow dañ ko am taxawaay buñ montee mm, bu jeexalee bu kii xëyee huit heures monté ba vingt heures mu wàcc kii ñëwaat vingt heures liggéey ba huit heures suba mu wàcc ñeneen ñëwaat noonu lañ ko renouvelé renouvelé ci diirub mm, boobu ma leen wax muy cinq safar ak quinze safar ba màggal gi jeex bañ defal màggal ba def cérémonie ba sëñ bi yeewee lépp loo war a ci ay taxawaay dañ ko def ñooy nos loolu tamit ci biir loolu tamit ci comité bi ñu bokk ci la ñuy taxaw yëpp loo xam ne organisation la ci biir liggéey bi nga xam ne waaju ci biir biir biir biir biir biir biir kër Sëñ Tuubaa gi ci wàllu kilifa diine yi ñoom ñoo koy taxawu fu ñu war a dem ak ku ñu war a gisee ak kilifa geeg moo xam Cheikh Mamadou Bassir di fi ñëw ñu dajal leen ci kër gi saaf mu ñëw ànd ak ñoom dem saafoon teg ñoom bu fi jógee noonu la koy defee tamit kër Sëriñ Tuubaa gi ci Daaru Marnaan ndax benn groupe lañ ñi nekk fii ñi nekk fële ñu doon walante liggéey bi ngir jàppalante ci liggéey bi loolu daay tax wàll yoo xam ne daayira Moukhaddamatoul Khidma da koy taxaw ci màggal gi ci wàll gi ci tënk yu baree bari la waaye xëy na liggéey bi ñu nekk tax na ñu tënk noonu rek te kenn yi nga gis nii ay fiis yoo xam ne eh, képp koo xamante ne eh, yàlla dogaloon na nga bokkoon ñi nga xam ne eh, sëriñ garuk sëriñ bi nga ñëw ñu dalal la li war ci yow lépp ñoo koy taxaw ba nga dem doo am benn jafe-jafe sa lépp ñoo ko taxawu kon ne xam ne nag mm, liggéey bi liggéey la boo xam ne liggéeyu xel la liggéeyu coono la waaye lépp nag volontaire rek nga liggéey Serigne tubaa waaye dañu fi ñëw ñëpp daal danañ leen arrêté xam fi ñu dal xam fi ñu dugg toppatoo leen euh, seen i dugg ak seeni i génn lépp duñu am benn jafe-jafe. loolu daal mooy taxawaay yi nga xam ne war nañ fi euh, ci màggal gi ñu war ko taxaw ci tënk di nuyu nag euh, ak siyaare waa MKTV yi nga xam ne mooy site bi nga xam ne euh, day jàllale ay information yoo xam ne yu am solo la yu yitteel yoon wi yitteel diina ji coot gu bari bari kon sëriñ bi ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm ci turu commission bi nga xam ne mooy accueil hébergement ci comité organisation Magal Touba ab soo commission la boo xam ci comité organisation la bokk di ci taal liggéey liggéey bu rëy ñu koy coordonné am ca ta yu mat a mat sëkk bis bu nekk dañu am bi am ñu àndal liggéey bi kon nag ñu ngi koy wax ci turu képp koo xamante ne daayira Moukhaddamatoul Khidma yabal na la nga ñëw ci euh, liggéey bi ngir taxaw fi liggéey bi ñu ngi leen di leen gërëm di leen jaajëfal baax di ñaanal Sëriñ Tuubaa Cheikh Mouhamadou Mountakha yàlla yàggal ko fi euh, ba li mu yéene liggéey Sëriñ Tuubaa mu def ko ci bàkk seen Xaadim wasalaamaaleykum wa rahmatullahi